wala guddi ki neexul lan la. yaa ngi may tooñ de mënuma génn si biir sa jëkkër def ma fa lu ma mitti ba pare mu ñëwaat fi nga may tooñ. Ah. bugguma problème ci def yooyu nag. waxal ak moom de bugguma benn problème la la def. tam nee na ci suba dof bi ci buntu néeg bi la fanaan ndax moom dafa yeew fekk ko ci biti mu hmm. te nee wax naa Kenza Kenza ne ko Jean Michel na bu mu génn léegi dimbali ma ci nag mu génnee ko man bu yàggee dina dugg si si biir néeg bi. da ngaa wax ak Jean. sisa laa jógee nii li hmm mu la wax. nee na mom daal moom du ko génnee waaw ndax dof bi rabam yi fii la na ko fi baye moy saraxu keur gi war na ma wax lol non non mais t'inquiète mom dina wax ak mom wax la mom de yow daf bi nan la la déranger ni dina wax ak mom t'inquiète pas. su pa hmm. dof bi nañu di tok fi seen buntu bi ba xam ndax dina len déranger wala du len déranger nekkul sa buntu nekk ko saf. ba luñ ko fa. si <laughs> man tan wolo moko dara dof bi. dama lay nopp nag. apprécier sa jëkkër di te yow fi ne nii yow sa jëkkër yow kafe woo ko reetaane woo ko li lay def bi nga xamee li nga xam si sa jëkkër dootoo ko defet dof. subaar dama lay xoj ci néeg bi nga mag yow doo nga fi nekk dama lay xoj ci néeg bi nga seetlu nga jiitu jaaree fii yëpp la ko def xoj man man seen caméra yooyu li jëndee woon. mën naa taa fay du xam na waaye yow daal woo kaa neex neex neex bu ñu fàttali bi daal am na coppati ci sa jëkkër de ay dof. loolu nag moo ci des. wujju dof. supa wu real dama lay dóor. ñoom dañoo am nag histoire ak dof seen papa am woon dof sax surtout ñu top ñeen affaire yooyu noonu. man dama jomme man man daal kër gi boo jógee ci lii dal ci lee. Ah, ba su mayaay ñu ngi koy lijjante gul dof bi bëgg maa teg stress. Eh, waaw garaaw loolu du stress non t'inquiète pas. stress la kay topp bi mu koy topp nag moom dëgg fa yàlla mi ngi may déranger. non t'inquiète t'inquiète pas yàlla baax na waaye. Ah. maman jëkkëram dofa koy topp. loolu sax la. mango gi dinaa ci jóg dinaa ci Mati Mbaay Mati Mbaay ndax mango gi du ma ko bàyyi moom wax dëgg yàlla mango gi fii nag bu bu bu ma séddaale fii gone wittu ko ba mu jeex lan la ñuy maccaate ah ñàkk xel bi bëgg a fii ne bu la xoolee fi rek lu kenn Mati Mbaay oo oh, oo oh, Mati ah waaw mais kii est-ce que ça va oh Mati ah. gaaw. waaw lu xew. yow woo naa la ñetti yoon. papa dama doon togg maa ngi woon ci biir waañ bi. loo toggaay. tey lan. eh bu ma fontoo xam nga man ni ma mel ci ceebu kecax boo toggul ceebu kecax rek wax ma ko. papa moom na géej. am na am na confirmé am paay. yoxos na yooyu yëpp xew na ci. mbaa am ngeen joxatu bu dijj bi. ceebu kecax ndugg bi daa war a fere. te gaa war a am joxatu nooto am ñaami mbooro. dégg nga am pataasu faas booy lu ci nekk rek ba ngay xam fa nga koy jële ndar géej gi nag nga dem ba ca ca dex ga ca ndar nga jëlee ko fa nii la demee ba am jeex kon jeex na foofu moom fos yàlla léegi nag mu def si njàngatu àdduna fii ma lay bëgg a wax ndax mati ñun suñuy conseil day ñëw nii rek naturellement nii rek ñu jox ko ndax àdduna wóor mati ma bëgg ci àdduna bul def kenn lu ko bul wax kenn lu ñaaw ndax yàlla léegi day wàcc di duma léegi ñafal ñafal lay def ndax Ibou Ndafa mii li ko dal bëgguma mu dal. lan moo ko dal. yooyu ah, ko moo gën a rëy accélérateur te tuuti dégg nga Ibou dem si Ibou Ndafa ab dafa ko topp. ay Paqué Ndiaye xam nga ko. dof fii nii ay Paqué Ndiaye dof bi ko topp boo ko gisee gis nga ay Paqué Ndiaye. bu lay wax nii. dama te dara yóbbewu ko lu bon lu ñaaw li muy nekke di ko teg ci kaw nit ñi xam nga loolu yéene loolu laa bëgg nga bàyyi ci xel àdduna loo ciy def na ci ciy sóoraale ëllëg am ci ñàngat waaw ndax àdduna moo demee noonu voilà dafa ñaaw dégg bii des mooy petit gisee noonu ci suuba la ilaha illallah daa marqué un pas la la la wax ma ni bi daanu ba ci na ci ma ko pourtant de mati deful dara mati solul xam naa bi bataan am la mu jël ko mati buy del salon lay dund gis nga da bëgg nga yëfu bande yëfu bu ngoog gis nga affaire bi one by one la suite game Casa Papel yëfu bande nii la nii la demee léegi nag yëfu bande laa bëgg nga def ko dégg waxoon naa la sa lamiñ bi ak yii foo mën a bënn bënnal noo ko jekk ko defal tuy libre. déedéet mën nañ kaa baax. soo waasal. déedéet papa bi bàyyi mën nañ def bakkan mais pas lamiñ. waaye dina dina dina Casa Papel. léegi na Casa Papel. mati eh! Eh, benn mag baax man yaa ma gënal ka ca ndar wallaahi ñaar ña ca ndar daanaka daal yaa ma leen gën léegi dama balaa dara cin laa dar uu dama ceeb ki tax bëgguma mu xeeñ xam mati soo wal ba tee bu koy yàq jëlal sa temps ba ceeb bi ne lépp maase dana tooy ah dana tooy yëpp yooyu baaxul kay waaw man baa du art mbuub moo day Move de muito de um tatuai. waaw lii lan naat yi yow laay waxal tan Ya yi mu mu ngi ci kër gi dem ba ya. ya, ya nga may yaat yi yaa xam xam nga boobu ba tey yaa lal plan plan boo lal mu ne rajax bu soobee yalla yonent bi gi nga sa plan bi ya ko wieto waye du jalle fi inshallah allah man ñen motax ten teen mënumaa dem man yu def ñu ni ma da nga yey payan way nu ne teddi ñi dem néeg néeg eh, to day fii naan dem néeg to day fi ñu dem ban néeg يا يا تختدي باخوي لا بودي تدي يوكا وبودي دي تخنين الدنيا تدي آه، نجبة نيرم ايه توضي نيرم يا ماي نجبة ما نجبة نيرم ماي نجبة دخون فو خوني واي شوي نادي نجبة من دي خمنا عندما waaye sëñ bi seen bi waxoon na ma ba xam yi ne wax yépp ba xam dëgg ya man xam naa ne yi ma wax yépp dara du ci dëgg yii di man nan yaay deeyoo ci moom est-ce waay naa deeyoo ci moom. waaw waaw Kenta na nga def. waay Fabrice. mu ngi foofu. foofu. mbaa dara jotu ko. non dara jotu ko amul benn problème. non ok lu mu lekk laa ko doon utal quoi. ah waaw waaw lekk bi moom bu dee bu dee lekk bi garaaw léegi. Mhm. dañ koy dañ koy commandé parce que lekk bi mënu génne si kër bi. si si ah. da ngay dem restaurant wala foo dem. baax na nga ute ko lekk en tout cas na lekk bi baax ah. d'accord ok. salaamaaleykum. Ouais, docteur Kadé. Ouais, je vais bien, ouais, je vais bien. Ah, ah, ah, ok, ok, merci. T'es bien par là Ok, ok. Euh, en tout cas, euh, j'arrive tout de suite. Hein? Ok, merci, merci. Merci, Jeff. Jeff. Quel? Oui. Dañuy démarrer, hein? léegi man damay am fu ma may jox la yow nga jën après nga yob ko dégg d'accord ok parce que affaire bi li do doon xaar yëpp mot na quoi D'accord.